Mamor xam sa diine mel na ne li nga xam ne euh, fàttali nga ko fi xol yépp xol yëpp fees na euh, am murit nag daanaka lii rek mooy li nga xam ne mooy ak dundam mooy fàttali ko loo xam ne xamu ko woon wala nga yeer ko ci loo xam ne war na koo xam wala nga indilaat ko ci ay dénkaane yoo xam ne sëriñ bi def na ko ma bëggoon nag ñu def ni mag ñi daan def mag ñi de képp ku mës a bàyyikoo ci sëriñ bi wala nga indil leen lu lu jóge ci sëriñ bi dañ lay teral ba noppi doog a laa déglu loola moom xam nañ ko ci Seex Ibra sax lu mës a bàyyikoo ci sëriñ bi balaa mën a dékku loolu ba cay xam dara dalay teral yow mi fa bàyyikoo ba noppi kon nag yii mu ñu fàttali na kenn ku ci ne làmb jibaam rek ñu terale ko ko ndénkaane yi nga xam ne wax na ko ak yi nga xam ne fàttali na ko te mu jóge ci sunu yaakaar tey ak ëllëg di Seexuna Ahmadul Xadim kon nañ ko teral kenn ku ci ne na làmb rek lu nekk ci jibaam nun toll rek ñu dajale ko terale ko sëñ Mamor ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne def na ko ndax lii mu fi wax wax dëgg yàlla am na solo lool ñu ngi sant ñëpp di sant ak kilifa yi nga xam ne teew nañ fi ñu euh, di jël cant gi di ko teg ci am sëriñ Amsatu Mbàkke ibnu sëriñ Sohaybou ñu ngi ci biir agsi na ak ñi mu àndal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 wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi noo ngi sox sunu nuyoo fi ko sëriñ Mame Mor Mbacke xamle diine tàmbalee ak fi ko bàyyee di ci jiital sëriñ Moustapha Gaye moom sëñ Alamine Gaye di ñaan suñu borom yàggal ko te wéral ko ak mboolem njabootu sëriñ Mat Lamine Gaye gépp duñ ci guddal di dindi li mu defoon ci bopp yi ndax li mu fi wax doy na sëkk yàqu-yàqu jikko yi lañu doon waxtaaneel lii mu doon wax nag su fekkee dégg naa man waxtaan wi sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu dafa waxoon ni jëmmi nit du àgg ci yàlla jikko mooy àgg ci yàlla sëriñ Touba nee na jëmmi nit du àgg ci yàlla jikko mooy àgg ci yàlla mu ne mag ñi xam ngeen jikko nu muy àggee ci yàlla ñu ne ko soonu ci dimbalee nu jël sëriñ bi ne leen sa jikko mooy baax wër bindeefi sunu boroom yépp ba bindeef yépp di ko waxtaane mu doog a waaxu wut sunu boroom bu demee sunu boroom gërëm ko sant ko mu dellusi ci yow maam Cheikh Ibrahima Fall ne ndëndum ngërëm galenub cant koy tëgg sëriñ bu ne bu dee jikko ju baaxul itam noona lay def day wër bindeef yépp ba ñépp di la mere mu waax suñu borom suñu delloosi ko ci yaw yow képp nga wéete ko kon jikko daal mooy maye ngërëm jikko itam mooy xañe ngërëm kon loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax Sëriñ Tuubaa it mën nay waxtaan ak mag ñi bindal leen baatu xuluxu ñu jàng arab xam nañ ne jikkoo mooy firi xuluxu xaaf laam xaaf maanaam xaaloŋ laam xaaf Sëriñ Tuubaa jël baante teg ko ca xaaf nga ne leen yéen mag ñii su ngeen bëggee raw rawaale lii ngeen àndal tama def ko ci yéen baatu xulux bii di jikko moom ngeen di jël ñetti arafam yi mu làmboo sëñ Tuubaa ne leen xaaf gi mooy da ngeen di fexe ba seenum xel di rafet liggéey bi na seenub laam gi na seenub liggéey rafet xaaf gi na seenub xol rafet sëñ Tuubaa nee na nit bu xel mi rafetee ab liggéeyam rafet ab xolam rafet dana raw rawaale la mu foofu yi rek la defoon mag ñi ci baatu xuluxu muy li sëñ bi doon waxtaane noonu beneen bi ci des tudd na fi léegi àdduna mii ñu nekk sëriñ Tuubaa daa masa dajale mag ñi ne leen kaay ma waxtaane ak yéen ci àdduna ak àllaaxira sëriñ bi ne leen àdduna ak àllaaxira day ñaar yu dend te wuute lool daal ni dikk leen fi man mi amul kumpa fenn ma leeralal leen mag ñëpp ñëw sëriñ bi ne leen àdduna ba mu sosoo ba léegi ak jant bi ñu yenn damay waxtaan ak yéen ak ëllëg yéenu jëm muy àllaaxira te fa ñetti barab yooyu képp laa yamale man ahmadu mi oo ma fi kumpa fenn daldi nag ku yàlla sama borom boole ku mel noonee nag war ngaa góorgóorlu ci lam lay digal nga sax ca lam lay tere nga di ko moytu mag ñi ñuy fàttaliku nag foofu lañ nekkoon rek ak sëriñ bi seeni jikko la ñu defaroon adduna mi amuñu ci woon soxla ñu def ko ne fu ñu war a jaar la jàll waaye la dundi dunde ëllëg ci àllaaxira muy këru dëgg ga fii lañu koy liggéeyee ñu am ngërëm yooyee sax ci loolee sëñ bi waxoon na fi léegi mujjug jamono yi ciy xew sëriñ Tuubaa it junjoon na ko 1919 ku ñuy wax sëñ Mor Ndiaye Arène daa bari gerte ba sëriñ bi tudde ko Mor Ndiaye Arène loolu bañ ko ko waxee ñaari maanaam junni bari koy gerte la indi jox ko sëñ Touba Ndiarène akum njabootam daal ne sëriñ bi day sama lépp ñëw na li ma jur ñëw na li ma bay ñëw na sëñ Touba ne ko ak sa moor ku séq man Ahmadul Xadim def la nga war a def man sëñ Touba lu ma des amutu des waaw foofu laay tënk kàddu gi jox ko incha allah waaye keroog sëñ Tuubaa dafa wax ne jamono ngi ñëw ci kanam li tee ñu àgg ca juróom fukki at a tee ñu àgg ca te loolu 1919 la ñu kon bañ àggee 1970 la sëñ Tuubaa doon wax kon agsi nañ ca sëñ Tuubaa ne leen jamono ngi ñëw jot yetti fas yi ku ko war fu ma nekk nga fekk ma muy liimaan ak lislaam ak ihsaan sëriñ Tuubaa ne waaye su boobaa nag yetti fas yooyu am na yett yu leen di dogale mu ne liimaan su boobaa ab dërëm dana ko fi jëlee bam set wecc ku amul ngëm boo dëgërut ñi am maanaam dërëm fu mu la fekk dindi sa ngëm yàlla lexsaan sëriñ bi ne tubaab bi dana ko fi jële mooy li sëñ maam moo doon wax léegi yii nu yóbbee ba tëlatuñ jaamu yàlla gi war mu ne lexsaan jigéen ñi ko fi jëlee bam set wecc sëñ tubaa ne su boobaa oto yi dana yokk étage yi yokk wërsëg yu yokk waaye sëñ tubaa ne dootu leen nopp guddi ak bëccëg da di sonn du ngeen bëggante du ngeen wóolante te nee na itam feeg nag tënku ci ndigalu yàlla yi du ngeen am li ngeen bëgg kon li mu doon wax lépp ci yàlla rek la doon delloo booba. fi ma koy tënkee te sëñ Maam Mor wax ko léegi sëñ Touba nee na pencum yàlla ma ku ma fay séenu man Ahmadu doo ma gis sëñ bee lu rëy la nag. sëñ Touba nee na pencum yàlla ma ku ma fay séentu ngir ma xettali la doo ma fa gis ndax nee na waxuma yàlla lu ma fay tax a def jëfuma lu ma fay tax a dem. ñi ma wuy si woon la ma yàlla digal laa leen waxoon te man leen ca fuuf li ma tere woon laa leen tere woon te mësuma caa dox ëllëg fu ma nekk ku ma fa fekk góor-góor ci ndigal yi ma digal moo tax nga fekk ma fa ku ma gisul tey ngay gis ma nag yaa ko def muy si lii sëñ Maam moo doon wax kon mel na ne ñoo ngi tënk foofu kàddu yi jox sëñ Ibrahima Guèye mu barkeelu ci waaye mag ñi fii rek la ñu newoon adduna daal dañ ko jàppe woon kër gu ñuy war a jaar jàll àllaaxira mooy këru saxuwaay gi caabi bii nag dañ koo for képp ku ko réerle wala kuy boroom mën naa ñëw fii jël ko ci taabal gi sëñ tuwaay naw na mag ñi ñii ma leen booleen jàppale leen ci xare moomu leen leen du seen géwél juddu na ngeen leen wan yàlla te mu leen wan seen bopp li tax ngeen attan ci man lu ne sëñ tubaa dama leen wan yàlla ma leen wane yàlla nag yàlla wan ma leen ku wan yàlla ñi la toppit yàlla wan la ñi la topp ku nëbb yàlla ña la topp nag yàlla nëbb la ña la topp ba noppi yow doo mën a nëbb yàlla far mu teg ci ne ki waroon xamal yàlla te xamalu bis mu la waaleykum salaam wa rahmatullah bismillahi rahmaani ma arafa يسر لي ميسر مسيري مقدار لي بلا مسيري يسر لي ميسر مسيري مقدار لي بلا مسيري يسر لي ميسر مسيري مقدار لي بلا مسيري ولا لعين لسواي مدبرا بما على زري يدوم دبرا مع توجه المكاري ليا باغنا باب ذكري وهو اليوم أن رديد وواني ردي بلا مكاري ولا أمردي رد لغير جادي شيطانا من تيب الممر والأوتانا فر لغير جاد لعين يسوق لخيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كل يدي سبت وسبت نبي أو بقهاد قاد الإلهام قد أبديا لي مال بهام بدت لي اليوم برب الخيب أعاسني ممن خلا وخيب لا يتوجه لنبي متعب عني مات مكاري وتعب سعادتي بغير ما كتبت وكوني العبد الخديم ختبت سكر لي ميسر عسيري maxtara liya bila masiri yasara lil akram wa taysiran yafuq xilli way bila wijaari ya rafiq subhana rabbi alkarim alakramin man xaadani ilayhi bi takarumi doxtoola walam dama sukari walam yajal bi rafini sakari rafaani rafiun bilkitabi bila hisabin wa bila itabi لوى سكريا بلا كبران وسانني بالهل والجيران يسأل عن كل أسن يتيم مغنى اليتيم بها كزان حياتي إذا تلوت آية فرلئن لغير ذاتي ويسود المعين لم ينحني مكر ولا إبليس أو فقر أو كدر أو تبليس أي سم من العين والقلاب ربي بما الكتابة في المولى كتابتي فاق سياق تربيم وكل خير وسياق ترقيم ردى كتابتي بإذن الله لغيرنا في كل جان الله مد لي الأكرم تيسيرا يفوق قلي ويب لا جاري رفيق شكري لرب الكريم من كان سكارا واتجي منه في دارين أبكارا كتبت شكرا له ما قد رجوت به كوني سعيدا وسكارا وذكارا وجهت وجهي في سر النبي سندي للأكرم رافع وبسكارا رجوت منه تعالى صبر عملي ورفع اليماني نعم غفارا رجوت أن يمواصلة جملة أني وتقصيرهم لدار كفارا إني أخاطب في البر مغتربا ولم يزل جل قهرا وجبارا فجاءتني ربي بالآلاء يبليا عاد للبر ردي كل من بارا تبارك الله تبارك الله jërëjëf sëñ bi ne mi ngi sant ñëpp amiin amiin amiin def na ko def na ko def na ko def na ko def na ko def na ko lool dégg naa ci lool loolu la wóor na mën nga ko mën mën nañ leen dara waaye ñaan rek mën nañ leen loolu yëpp na ñëpp tàllal kon sëñ bi nee mi ngi sant ñëpp gërëm ñëpp mi ngi ñaan aj yëpp faju na ñëpp tàllal amin amin amin amin amin Mbakke amin amin amin Mbakke amin Mbakke amin Mbakke amin amin amin Mbakke amin Mbakke amin amiin wajaala biya li xayri man biya taallaxu almira bil axbiya akramahum rabbi bi annahum maa yabduuna min nixami baaxin xannaa nafaaxu dunya wa uxraa naafiu bimaa bi taatihim almanaafiu najaahum albaaqi min دنيا أخرى ومن الخسران هرب كل من له سخاوة إلى سواي ولي تلاوة وجاء ربي يذم بالانجاء بعد الممات كل خير يصى لكل من بيتعلق النجاة من كدر الدنيا وفي يوم النجاة كل مريد بيلوذ يزعد فإنه من اللذى مبعد تعب ذي تعلق بأي زول بجاي من إليه وجعل مرور أكرم ربي كل من تعلق بيا وكل أباب من نطلق بيتعالق الذين أسلموا من دين عاذر دون من لم يسلم علي من لا أوصل جلالي بعصمتي من درر الإضلال زاد الصياطين الإلهي ضربا بذكره ولي منايا صربا يخوض للقرآن خوضا لم يكن لغير الدار وخادني منكم زدوا صلاة وسلاما وسنا لمن بدري بغير ينسنا بما يزرعه الحسن قد جاء بجاه أجل من لله قد نجا ربي بما يزرعه الحسن قد جاء بجاه آتى لمن في الله قد جاء حمدي لرب الكريم لا شريك له وسلي اليوم نورا صادقا ملأ محمد صلى الله الخلق ما يغدر من بناه الرحمن ولجميع الخلق رحمة من يغني عني شر ما قرآن قراء غلمة المصابة عن كل ما سداد فتر من خلقايا من جاده فداد مالك الملك يا من جعل الخواتم ارحم جميع الورى يا هادي الردى يا مالك الملك يا من جعل yaa يلاقي وجهت لله وجهي وهو يقيني وبالذي فخسني قد يلاقيني قولي وعدي وفقي عن سلفا ولا من راد من كاد يرديني لواجه يوم من أدائه لؤاما غنيمة فتحت لي باب مسجد بالاسم منه مضموني أزالك سناتني منه مضطربا عند لدى كل فتان وفيدا بتفسير وتامين حسني على حقي والله جل على وبالكرامة بالكسب والتوفيق سام مدادي ولي أعين حقا كل تعيين حتى نيوب مع الأسفل عن قبالي كما كفاني مخشاة الشياطين وسلمني كل صلاتي قلوبهم للذي أختاره صرفا بكونه لي في باد ومكنون وسرت بالواحد القهار من خليفا عن المناهي وعن أفعال مجنون زدت المتاب لرب رد لسلاني بعد سراء بفتح الخير يفتيني هو الخبير الله الذي بالغيب يخبرني وبالخيوط عدي والأمداد يأتيني قلبي وجسمي وكل الله يفسوها من المفاسد في الدارين من من نقد ودماء ومن جميع الذي لم يردني سنة المصطفى بيداء تكفيني أنفي بها باطلا عني وأرده وإن سمعت فقيد الله يسقيني تباكي كون الله لي وله حمدي وشكري وبالماء يراقيني لو التجائي به عبدا بسنتي واستغيث به من كل ما كنت اجعل مدادي وأحلامي بكل منيدي بشرى المخافى وبشرى خلق العين نبست ما كان عندي فلتسوق بدلا لي سرمدا والتهب خير تمكيني نجيتني من أسى أعداء مغتربا فجود كوني أسى حول وتسليمي أزعتني الأسى بالمصطفى كرما هب لي تلا سماما تهدى بتاسي لك سنا والرضا مني وما مداد يا من خيرات لدى كوني غريبا كاسر وادي وسنوني أن يسوى لي سفولو من تاتني دياما وجود سر العاصي بالملك مجنون

مالي دنيا وأخرى خادما خير مصوني إجعل سبي ما لقيته ومدى من نزار غدا يوم الموازين نجيت وزير نجاتي وجودي بالمخازين زدني علوما وزير سعي وزير أدبي يا من من الأرض والكافني على سقوم وسجين وقيدني هموال الكل لسلولا من بعد كونك مسؤول ومسجون غني جميع الذي لم تكن صمدي يا من كفاني خبيثا كاد يديني اكتب صلاة بتسليم لسيدنا محمد من به للحق تهدي اكتب صلاة من تسليم لسيدنا محمد من به للحق تهديني اكتب صلاة بتسليم لسيدنا محمد من به mbokk yi kon mu mel ne lii mooy li nga xam ne groupe Istikhama indi woon na ko ci wàccaayu bisub sëñ Alamine Gueye moom sëñ Mad Lamine Gueye mu baax ma ñu amal ci conférence bu am solo boo xam ne àndoon ko ak sëriñ Maamoor xam sa diine mu mel ne tey jii képp ku fi teew sa xol tooy na ndax tomb bi nga xam ne waxtaane na ko mu dëppook tomb bi ko sëriñ bi joxoon ci wàllu melokaan ak jikko ñu tënk ko ci wa innaka la ala xuluqin asim kon mel na ne képp ku fi dikk tey rek am na loo fi jële loo xam ne euh, matoon na bañ a ñëw kon ñàkkoon a ñëw wóorul kon képp ku fi ñëw ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi xaas képp ku fi ñëw di góor ak jigéen yàlla nga daje ci liggéey bii raafatu fi xidmati tawfiq xaaliqina almulhimil xayri maahil jëhli wal alami jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu